jërëjëf mbokk yi béggee wal fajri nuyu nañ leen am mbégte dellu seeg yéen seen émission làmb ji ni nu koy defee saabu làmb sàjjee topp gan ñu bokk ci làmb wéyal ko ak waxtaanu lamb yaatu noonu lañ koy fas yéene wéyale mbokk yi bala nuy gën a sori ñoo ngi nuy ñëpp ci biir nuyoo bi ñuy dellu di ci jiital kilifa diine kilifa aada yi di sàkku seen ñaan ci réew mi ndax soo duggee ci gaal bëgg a mucc da naan yàlla na gaal gi mucc kon sunu gaal gi borom bi yàlla na ko dëkkee sàmmal boppam ba dëkkee jow ci géejug bànneex bu ànd mbeex mu sedd te lor mbokk yi ñi nga xam ne ñoo feebar ne ci kër yi ñi feebar ne ci yi ñu leen di bàyyi xel borom bi yàlla na leen boole fëgg seen bopp ñi nga xam ni caabi daf leen féete ginnaaw borom bi yàlla na seen wéttal wéttali leen boppam taxawu leen ba nu génn fa ak jàmm sunu mbokk émigré wéy daani doole ñoom it fàttewuñ leen ak fépp fu nu mën a ne ndegam teraanga leen tax a jóg borom bi yàlla na leen teralal boppam euh, jotaayu làmb ji nag dina yaatu jotaayu làmb ji dinañu ci def jàngat ak ponk yu bari xam ngeen ni ñu ngi ci wàccaayu tàkkusaan gu mag muy le 4 avril tàkkusaan gi nga xam ni Gaston Mbengue moo ko tëgg war a dox diggante ki nga xam ni mooy Eumeu seen ak Lac de ñoom ñaar làmb boole woon leen dellu boolewaat leen kon tey làmb boolewaat leen waaye ci biir tàkkusaan googu Diène Kaïré war cee dajeeg Modou Anta bu Thiès loolu tax na ba seeti nañu Gaston Mbengue séq ak moom waxtaanu làmb ba xam combat boobu yan matukaay la ci jël nan la ci fas yéene liggéeyee ak it li nga xamante ni mooy projet Gaston production ci saison bi leeral yu am solo jëlee nañ ko ci Gaston Mbengue ñoo ngi ciy ñëw. waaye bala nu ciy gën a sori jotaay bi ñoo ngi fi ak Boubacar Niang muy sunu naataango di journaliste sportif bokk ci làmb di ci def liggéey bu am solo muy promoteur euh, xam ngeen ni moom it saa yu ñu amee jotaay ak moom ci tàkku saan yu ni mel xam-xam bu rafet bi ak li nga xam ni daf ko ci yaatal day tax ñu sopp jotaayu moom ci lu ni mel ñu ngi fiit ak Kona lan Sarr muy champion boo xam ni bokk ci làmb ne ci làmb ji di bëre waaye bokk ci làmb ne ci làmb ji di xeexal intérêt naataangoom yi nga xam ni ay mbër la ndax it ànd looloo koy tax a neex naa jariñu waaye na ñëpp jariñu loolu day am solo ci ànd ko jotaayu làmb jaa ngi noonu bu demee ba ci kanam it fekk mu ñaa production arène national ni mu ubbee saison ak Jax keroog ni mu ñëwee gaal gi Boubacar a ñoo ngi lay nuyu. Papa Lune maa ngi lay fay. jërëjëf di la nuyu di la ziar di wax ne namoon nañ la. ñoo la raw euh, namoon nañ tamit làmb. di mhm. nuyu ñëpp di rafetlu démarrage saison bi. di nuyu champion Kona comme ni nga ko waxee. Mhm. parce que xam nga sport. Mhm. du question tout le temps performance. mais mais sport combat la. combat la je pense que làmb combat la. te moom mi ngi def ay combat yoo xam ne. lépp si làmb ak njëriñu làmb. ba des Mhm. kon loolu ñu ngi koy rafetlu di nuyu ñëpp di nuyu axlu làmb yëpp merci beaucoup jërëjëf kon naa ñu ngi lay nuyu Pape Aline ñu ngi lay fay di la ziar di la ñaanal di rafetlu sa professionnalisme et ah. taxawaay bi nga am si làmb di nuyu suñu grand ñaa moom mm-hmm. moom tamit taxawaay boobu la am si làmb mm-hmm. donc ñun bu ñu bëggee bu ñu ñëwee ci làmb yéen ñu mel nii yéen a ñuy dooleel parce que tey euh, liñ naan feccum liir bu neexee ndey jaatee ca wagg ya mm-hmm. kon ñu ngi leen di ñaanal di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi déglu mhm. wala ngay seetaan Walf TV jamono ji ñuy àddoo ngay teewlu mhm. di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal aussi ndaw yi réew mi génn àdduna jamono yële mhm. ci manifestation yi yàlla yërëm leen xaare leen àjjana ndax ñun ay ndaw lañ mënoon na nekk ñun am na ñoo xam ne dañ doon jëndi reer am na ñoo xam ne dañ doon romb bal perdu daal leen ñu génn àdduna manifester sax taxu leen woon jóg kon ñu ngi sukk di di leen seen mémoire di leen xamal ne ay jeunes yu dem lañ mhm. te perte la mhm. ndax jeunesse dafa am lu muy joué ci ci ci ci ci ci ci dëkk mhm. kon maa ngi nuyu waa Lamsaar écurie Lamsaar laa nekk di nuyu waa APEX bi ma dëkk léegi. Mm-hmm. di nuyu Pikine gi ma juddoo di nuyu banlieue yëpp yëpp ak Sénégal gi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon jërëjëf Kona jërëjëf Boubacar Niang muy nuyoo bu am solo nuyoo boo xamante ni gan yi ñu koy séqal ni ma leen ko waxee fa tubaar fa kàll ku leen déglu di nga dégg njariñu làmb mm-hmm. yaa ngi ñuy tudd Lansar ñuy bàyyi xel su suñu nijaay Cheikh Niang président écurie Lansar moom it di ko nuyu bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla saa nuy déggante ci mbëru lansaar am na combat wala mi ngi ciy wàccaay fexe leen nu ngeen ko gën a bàyyee xel loolu it am na solo mm-hmm. ci njiitu écurie di ko def ci ay xaleem mm-hmm. day jaadu jotaay yu ni mel bu kon bu ci buntu feeñee ñu jot li ko mm-hmm. euh, laataa nuy ñëw ci waxtaan wi keroog euh, gaal gi Jax ni mu ubbee saison dañuy ànd ak waaris yi ñuy bàyyi xel alaaji saalu Bey fare ci réalisation bi di ko jox cëram ak wàccuwaayam naka noonu Serigne Kayta Pape sàmba fare ci caméra bi ak Xadi euh, Mbay ci montage bi bu ñu ànd xool jag si biir gaal gi soog a ñëw ci jotaayu waxtaan laataa ñuy seeti Gaston Mbengue mbokk yi Soxna Bira nuyu la. Eh, jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu waa groupe Walfadjri yëpp su ma ñëwee fi fekk fi mbooloo mi fekk fi mbër yi amateurs yi ak yenn promoteurs yi daf may jox mbégte ndax lii nit ñi dañ ko xaaroon bu yàgg a yàgg. maanaam nit ñi dañoo xiifoon làmb namoon ko lool te wane nañ ko tey ndax seen teewaay wone nañ li yàkkamti woon nañ ko lool. Eh, li ko waral xam nañ ko du suñ coobare yàlla wàcce mbas mi mu dugg ci réew mi. il fallait que nag ñu observer li nga xam ne moom la monde entier bi di observer ci ndigali état bi ñu topp loolu moo taxoon vraiment eh, làmb gëjoon a am ba amee itam ba mu gis nañ ni mel nit ñi wane nañ ne namoon nañ ko lool waaw. gis nga tey maa ngi gis sànq day yebal ay gaane gaay nañ masque ko respecté tey loolu tamit xam nga nit ku nekk da ngay ànd jamono. jaww nag dafa am ci réew boo xam ne daf ci tënku mbas moo fi nekk neexul kenn buñ sañoon ëllëg mu jóge fii. Athia muy président wu CNG léegi ñu ngi nekk président Manga 2 nga xam ne mooy président mooy chargé lutte sans frappe moo ko yor mu def affaire bu rafet boo xam ne tey jii lu rare la en tant que président mu ñëw toog di superviser affaire yi président tey yi da ngay gisee lii tey la la jox. kontaan am mbégte ci lool di sant yàlla bu baax di gërëm le ministre de sports Makhtar Ba di gërëm le président de la république moo xam ne Makhtar Ba moom la waxtaanal ba ñu jox autorisation pour ñu mun a ubbi làmb ji pour xale yi mun a bëre donc tey soo gisee làmb ji nga xam ne xale yi xiifoon nañu làmb kon nag li ndam la suñu commencé ci lutte traditionnelle mu am ambiance bi yaakaar naa dama ci sant yàlla bu baax a baax waa Mbissine. waaw sa diggante seeti ñaar ñaar te yow luñ fa demee. non rek bëre la. Ah. waaw a ngi soog a daje. non naa ko ñaari yoon. maa ngi ak Ibrahima Mbaye tey yow loo gisee nii tey. lamb lamb moo indi lii lépp mais xale yi bu ñu toogee dal rek lamb ji mën na dafa benn combat capital na bu taxaw léegi rek. mu diggante Cheikh yaan ñaa ak euh, loolu moo tax ñëpp jóg ku ne bëgg a xool combat boobu donc bu ñu àndee dal rek ñu bëggoon ci làmb tey mën nañ ko am parce que jaral ñu toog fi ba heure bu làmb ji tasee lii moo lay wan ne senegal jàmm moo fi xaj lii la ñu na namoon nañu président jàppale làmb ji egg ci kàttanu yàlla. Sénégal gi diggante Cheikh Tidiane Niang ak Birame Mbissine ñoom ñaar ñi ngi léewantoo Cheikh Tidiane Niang moo ñu won kanam Birame Mbissine moo ñu ginnaaw. tey Jax production woote fii à terrain gaal gi Birame Mbissine Cheikh Tidiane Niang ñi ngi leewoon too Cheikh Tidiane Niang moo ñu woon kanam Birame Mbissine moo ñu woon ginnaaw terrain gaal gi lañ woote tey Jax production mu teg 2 millions 500. daan na ko ñaari yoon Birame Mbissine daan na ko ñaari yoon tey bi Cheikh Tidiane Niang waaw moo jël si revanche muy combat bu neex jàppante nañu baxante nañu 2-0 muy combat bu neex léegi arbitre euh, mi-temps nañu. cinq lañ bëre. léegi mi-temps nañu mu des beneen cinq minutes. ah Cheikh Tidiane Naar na ko dugg. Cheikh bëggoon na ko sàcc mais sa waay dafa rasu. di nuy Pa mbay di nuyu waa Walfadjri yëpp. tey ñu ngi fii si émission lamb ji Walfadjri fii si terrain gaal gi. Cheikh Tidiane dafa may ni la kuy waaj a ñëw. fu ñu toll Cheikh Tidiane Niang moo bi mais Birame mi ngi léewtoo toog si tànk yi Cheikh Tidiane na ko Cheikh Tidiane jël na ko daan na ko Cheikh daan na ko Cheikh daan na Birame Mbissine 2-1 2-1 Ibou Ndiaye rajaxe Ibou Ndiaye takk na ko da koy sukar bi wala oh Ibou Ndiaye sukar bi na ko Ibou Ndiaye ba oh nee na dafa am doole xale rajaxe waaye beneen combat ci digg géew gi daanu na. ay neex na même tas sa mooy bëre. yaakaar tas sa yaakaar tas sa yaakaar oh, oh, tas sa yaakaar daanu na daan nañ tas sa yaakaar. waaw ah, sama papa bëgg Fallou Ndiaye Cheikh Tidiane Niang daw na jël ko mu échec Cheikh Tidiane ci géew gi. dañuy njëkk a sant yàlla waa comme ñëwaat nañ si terrain bi di ñaan mbas mi jóge fi ba faw waa di sant yàlla tamit xam ne Sénégal lamb moom lañ am moom lañ namu woon moo tax ñëpp wuyu si tey waaw. tey lamb ji tey ni nga gisee mbooloo bi ñëw ak mbas beeg yooyu te gars yi dañu xiif lamb tey lan ngay ñaan. waa lamb ji mu continuer rek en ma jël ko si jàmm bokk na si li may ñaan tamit waaw. tey yow li fi gis 10 la wala 10. non lamb duy 10. Ah. waaw. lamb duy diis bu dee sa war rek koy jël sax doo xam fi nga ko jaar waa. waaw jërëjëf. baa ngi wax ak ñoom diggante Boy Faye ak mu général Malika arbitre soufflé na Boy Faye mu ñu féetee day jor ñu ngi lewtoo Boy fay mu ñu kanam booy Faye dal na ko Boy Faye jël na ko jàppante nañu Boy Faye fàqal na ko la ilaha illallah ah! dina jóg booy fay général jóg na. sa daxabal jabaxal na ko. attention mbot. mbot mbot. dinañ war na war na ndomba général Malika. Abi soufflé na génn na. jàkkaarloo moom daan ko moom booy fay moo gën a yomb nga war ko ndomba daan ko. jàppante nañu faxat na ko bu koy door ko tànk. daan na ko daan na ko daan na daan na ko. jërëjëf kon euh, waarisi ci loolu nga xam ni moom ngeen ñu toppal ñuy jaajëfal Babacar Diouf naka noonu Pape Samba ñoo fare woon ci wàllu caméra bi bëgg fàllu ñu koy nuyu di ko jox cëram ak wàccuwaayam moo fa nekkoon ànd ak ñoom def fa liggéey bu rafet liggéey bu yaatu liggéey bu am solo kon ginnaaw loolu dañuy ñëw soobu ci jotaayu waxtaanu làmb laataa ñuy delluwaat ci biir tàkku tàkkusaani ak jàngatu làmb yi Boubacar Niang mi ngi noonu xam ngeen ni lii moo ubbi saison bi nekkoon gaal gi journée sa production tegoon fa mise u deux millions cinq cent keroog xale yi wàlli si nanu keroog gaal gi dafa fees moo lay wane namoon nanu làmb xale yi bëggoon nanu bëre mm. ci njeexital ba général Malika moo ko jël ñu koy félicité di ko ñaanal jàmm mu muurloo ko mook xale yi nga xamante ni bëri nanu fa ñoom it beneen yoon li gën ci ñoom yàlla defal leen ko euh, mais lii buñ ci sukkandikoo bu bakar li ñu ci war a jàng mooy saison bi door na ubbi nanu lépp waaye mel na ni organisation bi am na lu xaw a sooxe ndax promoteurs yi ak ni nu jëlee dates yi donte am na combat nu door waaye des na loo fa mën indi. Euh, effectivement parce que comme ni nga ko waxee euh, saison bi commencé na euh, depuis dimanche passé. Mhm. Mhm. jax moo ko ubbi. mais boo xoolee peut-être premier jàngat mooy da ngay gis ren. Mhm. retour en arrivé en force lutte simple. parce que boo xoolee pour le moment à part sëñ Modou bi tëgg tey. Hmm, lutte simple ñoom ñoo nekk vraiment. di ci ndorteel bi donc moo jiitu lutte avec frappe. voilà moo jiitu lutte avec frappe. Hmm. donc nga gis ne je pense même Fallou tëgg na démb lutte simple. Fallou Ndiaye waaw. Euh, tey tamit Jackson tëggaat na lutte simple. Hmm. donc boo xoolee da ngay gis. séeréer yi tey tëgg nañ lutte simple tey tëgg fii euh, gaaw gi. donc nga gis kon trois journées. lutte simple. si benn journée lut avec frappe mhm. donc euh, nga gis ne kon ça veut que organisation bi am jamono ji si lutte simple mhm. amagu ko lutte avec frappe parce que lut avec frappe boo xoolee mhm. sëñ Modou li tax mu tëgg tey mooy euh, bi ñu defee premier rencontre bi moom ne huis clos la ñuy euh, la ñuy bëree. Mhm. donc moom si la si la kii nu mu tudd. donc dafa jiitu dafa d'accordoon si huis clos bi mhm. si la def euh, réservation bi jël ko. Mhm. donc boo xoolee mais ba tey promoteur lutte avec frappe bi ñëwaguñ seen CNG pour jël date. am na benn déggoo bu ñu am mooy le fait que daaw ñi nga xam ne ñoo régulariser woon combat yi. ñoom ñooy. njëkk jël mhm. bon muy logique parce que comme ñoom seen combat yi pare woon na te dara desuloon lu dul bëre ko mbas mi ñëw ñu arrêté championnat bi mhm. donc loolu moo loolu moo waral loolu mais bon mais depuis boobu nag promoteur yaa ngi xaarandi mhm. euh, pour jël ay date te boo xoolee papalune euh, avril bi boo xoolee dix jours moo si des si kàttanu yàlla euh, kii nu mu tudd koor gi daal di ñëw bon koor gi bu ñëwee ba pare boo xoolee trois mois presque deux deux deux mois quinze jours mooy des pour nawet doo doo du ñëw. donc mm-hmm. muy temps boo xam ne. quand même na gàtt na. donc waroon nañ mën a euh, avant démarrage bi bi ñu nee dañuy lever. Euh, nu mu tudd mm-hmm. crise euh, mm-hmm. waaw sanitaire bi ñu préparé woon lépp nga xam ne bu ñu siffler rek gars yi dinañ am ay date xool ba pare xool yeneen mesure alternative bu fekkee dañuy xoolaat ban stade Iba wala dara parce que combat yi bëri nañ ren boo xoolee bëri na ay voilà mm. bëri na ay promoteurs yu bees yu fi ne mm. promoteur daaw ñu bëri yoroon nañ ay combat mm. donc loolu yëpp nag euh, naka la CNG bii di ko organiser vraiment bon dina nekk une patate chaude quoi si seen loxo kon li su ma la déggee liggéey boobu du yomb wala dina laaj organisation boo xam ni nu mu gën a gaawee moo ciy doon njàppandal ci làmb mm-hmm. gis na nañu ni CNG bi ci seen daje yu njëkk jàpp nañu drapeau chef de l'État mm-hmm. donte lu nuy rafetlu la mbër yu bari dañ fay dem gox bu buñ ko defee làmb dafay dund daf fay suqaliku mm-hmm. kon Kaolack war a dalal gan ñi waaye it ndax it foofu mooy priorité bi non pour man foofu du priorité bi parce que boo xoolee tey jii je pense que tey jii acteur yëpp nangu nañ ne reprise reprise u championnat bi ak compétitivité compétitivité wu làmb mhm. tey ji mooy mooy mooy mooy objectif bi mhm. xam nga si sa élément de reportage bu sànq gis nañ ko mhm. boo xoolee première journée macha allah euh, mbooloo bi yëpp ñëw mbëri yëpp ñëw nga xam ne comme namoon nañ donc comme namoon nañ ko te actuellement nii tey ji boo xoolee promoteur xam nga làmb boo xoolee ñi ko yor mooy les promoteurs le promoteur le promoteur privé. donc le promoteur privé donc te depuis daaw am na ay promoteurs privés yoo xam ne ils sont plus de dix. investiroon nañ investir nañ seen xaalis. di xaar occasion pour ba. je pense que ñooñu la ñu waroon njëkk. may la par belle. may leen euh, euh, euh, situation ak opportunité wu. ñu vider seen i combat. Mhm. CNG nga xam ne nag moom moo fi nekk làmb. Mhm. ñoom soit ñu dem fin de saison. ñu jël seen seen journée. Mm-hmm. wala peut-être saison wu nu mu tudd. Mm-hmm. Euh, saison daaw seen bii di ñëw. Mm-hmm. ñu ubbee làmb. ñu ubbee làmb ñu parce que euh, pour man euh, drapeau chef de l'État actuellement ni si contexte bi. wax dëgg yàlla du priorité. quoi qu'on puisse dire du priorité. benn week-end la rek si nii. làmb yëpp bu ñu ko tënkoon si drapeau chef de l'État. bi muy am làmb du am ci yeneen gox yi. benn du am. waaw lamb day trois jours lay jël. mu jël ñetti fan peut-être ren sax mënoon nañ ko circonscrire. Mm-hmm. parce que xam nga contexte bu ne dafa laaj ay adaptation. Mm-hmm. lu jamono lu si xew lu ne. Mm-hmm. laaj na ay des fois ay coppite. ay coppite peut-être bii xool benn formule bu ñuy def. ba bëre ko bëre ko si deux jours wala. def ko vendredi samedi après bàyyi ko mu def après bàyyi ko mu dem voilà. jàngat bu am solo la naka noonu ma ñëw ci kona bu Lansar moom it ni ma ko waxee bokk na ci làmb saa su ne luy defar nekkinu mbër mooy ay bëgg-bëggam mooy ay kombaam yi muy xeex ci làmb kona su ma la déggee jamono yi def nga sorti wala am nga gis-gis boo xam ni. Mhm. danga gis ni kuréel yi nga xamante ni ñoo fi ne ñu jiitee kon yéen mbër yi rawatina mbër yu ndaw yi nga xamante ni ñoom ngeen di àddul. Mhm. xeexaluñu mbër yu ndaw yi wala fi ngeen bëgg ñu teg fa xeex bi teguwu fa. waaw Pape Aline ñu ngi lay nuyuwaat di la remercier waat encore donc je pense que ni yow wax nga lépp daanaka parce que tey ñun làmb lañ wax. Mm. te làmb ay acteurs la. Mm. acteurs yi dafa bari. Mm. ay couches. dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci kaw. Mm-hmm. am ñu nekk ci diggante bi am ñu nekk ci suuf. Mm-hmm. donc su fekkee yaa ngi jiital yaa ngi mm-hmm. doxal làmb rek te munoo. munoo généraliser xool chaque moment la ca war a xew ak acteur bu nekk maanaam côté bu nekk lan nga ca war a jëmbat. donc c'est c'est déplorable ñun lu ñu lu ñu lu ñu wax loo mooy ay jeunes lañ. te dama gis ni euh, làmb war nañu wane beneen xar kanam. ci société bi bu wuuteeg bi ñuy xoolee. parce que dañ ñu sous-estimer de trop. te je pense que aussi ñun aussi ñooy xaw a yombal loolu saa su ne rek dañuy pointer le doigt parce que tey bu ñu nee làmb rek xel yëpp day am ci leneen lu mu dem te loolu ça n'a rien à ak làmb donc nag comme nañ naan ay réincarner un nouveau type de sénégalais man damay wax ni on va dañuy dañuy consolider le vrai type de sénégalais mm-hmm. dama gis ni waruñu soppi li ñu bëgg a loolu dafay nekk da ngay déraciné wu. Mm-hmm. da ngay fexe réincarner le vrai type de sénégalais mooy lan sénégalais de ngor et de jom. Mm-hmm. li ñu donn ci suñu maam yëpp mooy sénégale nit ku baax la. Mm-hmm. kon c'est pas la peine ñuy réincarner un dañuy jéem a consolider le vrai type de yi fi mag yi bàyyi woon valeurs yi ñu suñu papa yi bàyyi suñu mag ñi ñu loolu man ci concept boobu laa nekk. làmb la ma la ma laa féete. kon bay ci say wewu tànk. kon ci làmb laay xeexee combat boobu. donc ñu ngi koy def nag ay at nit ñi xawoon nañ ñu bañ a comprendre mais nag damay wax rek le temps est le meilleur juge mhm. chaque jour da ngay wax mais nit yi mën nañ la bañ a comprendre mhm. mais à la façon booy dem temps bi di dem mhm. dangay gën a comprendre yow wax nga lu am solo léegi ci làmb nuñ ko ubbee tey li ñu naan dans l'imprévu rien n'est tenu tey drapeau c'est de l'État mënoon na xaar effectivement et puis promoteurs yi dañ leen war a jàppale parce que ay jeunes lañ dama dégg Macky Sall léegi mu ne day jugalaat trois cent cinquante milliards xaw ma ci jeunesse bi làmb ak lu làmb ñëpp ay jeunes lañ et je pense que ni tey ñun sax on n'a pas besoin beaucoup d'aide mmh. ñun dañu su soutien rek lañ soxla. bu mmh. ñu accompagner. Mmh. boo ñu accompagner parce que ay ñoo xam ne.